sant bu baax di leen gërëm ci teewaay bi tey jii nag dañu fee ñëwoon ngir euh, daje bi nga xamante ne bii mooy daje bu njëkk ci waajtaayu màggal Touba grand màggal de Touba édition 2022 ñu woote woon ko nag ànd ci ak euh, comité d'organisation bi nga xamante ni bii Serigne Ousmane Mbacke Gaynde faatma moom mooy coordonnateur bi waaye tamit ci njiitalu sëriñ Bassirou Abdou Khadre ñu ngi koy nuyu di ko ziar di di jël nuyoo bu sell ak ziar di ko teg si loxoom pour mu tegal ñu ko ci suñu wayjur sëriñ muntaxa Mbacke yàlla na fi yàgg te wér màggal gi nag ñi ngi koy xaar ci jamono bi nga xamante ne bii. daanaka at yi ñu génn yëpp ci jamono boobu la ñuy def màggal gi muy jamonoy nawet ñaari at yi ñu génn ñu nekkoon ci jamono bu xat boo xamante ni bii àdduna bi yëpp moo ko yëg muy jamonoy Covid waaye ñu seetlu woon ne saa yi ñu defee màggal gi ba génn. sunu borom daf ñu si defal sutura boo xamante ne bii cas yi du yokk dafay wàññeeku kon nag loolu jàpp nañ ne boroom bés bi moo ko waral. ren nag li ci dolleeku mooy dafa mel ni nawet bi dafa ñëw ci jamono boo xamante ni bii xëj na sa xaaruñu ko woon ndax wax naa sànq si njëlbeen na leen sunu taw bu njëkk ci nawetu daaw bi ñu ngi ko amoon. le 25 juin ren sunu taw bu njëkk ñi ngi ko am le 27 donc daanaka am na weer boo xamante ni bi nawet bi jiitu na ko par rapport ak nawetu daaw ba fii may wax ak yéen 63 millimètres am nañ ko te daaw jamono bii ñu doon wootee daje bi boobu fekk na amaguñ benn toq taw bu ñëw ci dëkk bi loolu nag moo waral euh, ñuy wax service yi nga xamante ne bi ñoom seen liggéey ci loolu la maanaam waajtaay bi ñu gën koo gën koo baral ci wàllu sante matukaay yi nga xamante ne bi moom la ñuy jël service yi wax nañu ne matukaay yooyu dañu koy yokk waaye duñu ko wàññi alhamdulilah nag ren ñu ngi dëgmal màggal gi ak ñaari mbir yoo xamante ne bi bi ñuy màggal daaw amuñu ko benn bi mooy SAMU municipal ah, euh, SAMU national bi nga xamante ne bii euh, daaw jamono yii ñu ngi doon euh, ci liggéey yu mujj yi ren pare na ba nu daloo ko waaye tamit président de la république def na fi hôpital de dernière génération mooy hôpital Cheikh Ahmadul Khadim nga xam ne am na vingt services am capacité de trois cents lii fii may wax ak yéen fukki services yëpp ñu ngi fonctionné am nañ yaakaar na fii ak màggal leneen li des ci service yi dina mën a fonctionner ba mu dugg ci dispositif bi donc loolu yokkute la par rapport ak ak daaw. wàllu ndox nga xamante ni bii préoccupation bu am solo la fii ci Touba wàllu ndox ñun ñëpp xam nañ ne Touba dëkk la boo xamante ni bi dafay xëy di màgg jafe-jafe ndox nag am fi waaye nag état bi wax dëgg yàlla mi ngi def ay effort yu mën ba màggal gii ñu jëm. am na ci ay mbir yu am solo yoo xamante ne bii saa yu ñu jëmee màggal mu def ko yooyu xëj na du ci ñëwaat c'est des actions yoo xamante ne bii maanaam c'est des actions euh, traditionnelles waaye li nga xamante ne bii mooy lu bees mooy ñetti forage yoo xamante ne bii nee nañu balaa màggal dinañ fexe ñu dugal ko ci réseau bi muy forage su Daaru Xuddoos forage wu Touba Boborel ak forage wu Ngaabu loolu nag am nañ ci yaakaar bu baax ndax démb rek dalal naa ki nga xamante ne bii mooy ki jiite entreprise boobu te tey jii newoon na ma dina commencer déployer maté matériel bi te délai bi ma wax mooy fii ak weer bëgg na au moins liggéey boobu noppi donc loolu am nañ ci yaakaar bu baax. ndax dafa mel ne ren jii teel nañoo jóg. beneen innovation bi nga xamante ni bii lu ñuy rafetlu la te ñu yàggoon koo jooy fii si Touba mooy ñoom jël nañu engagement ne lépp luy forage fii si dëkk bi dinañ fexe ba mu am pompe doseuse pompe doseuse nag mooy jumtukaay boobu nga xamante ne bii dañ ciy def chlore pour que nit ñi ndox mi ñu naan gën a sell loolu nag. doon na préoccupation boo xamante ni bii bu ñu yàgg wax la ndax dañ daan def saa yi ñuy jub màggal rek ñu indi installé ko si forage yi waaye bu màggal jeexee ñu yóbbu ko waaye cette fois ci ñoom nee nañu jël nañu engagement que loolu dañ koy indi bàyyi ko si dëkk bi ñu koy continuer di ko jëfandikoo donc am nañ yaakaar ne ci wàllu wér-gu-yaram dina doon lu am solo loo xamante ni bii dina am njeextal ci askan wi nga xamante ne bii moo fi moo fi nekk sama wax du ci bëri c'est-à-dire que euh, maanaam dëkk bi moom nañu jàpp ne dëkku baat la boo ci amee mbébét ci benn mbir nga gis ne xëj na am na ñu ko rafetluwul da ngay dellu si borom baat bi donc di ko déglu waaw dafa mel foofu daal lañ toll. événement la boo xam ne ni mu toll kenn dootu ko wax kenn. kenn nattatu ko ci senegal waaye ci àdduna lañ koy nattee événement bu toll noonu nag bu fekkee yàlla dafa def muy xewi fii defe naa ñëpp ay acteurs lañu ndax ci suñu réew lay xewe waaye nag ci ñun lay xewe murit yi nag ñi ngi fépp ci àdduna bi waaye jullit yi ñi ngi fépp ci àdduna bi ci ñu bari ci jullit yi xam nañ bis bi xam nañ li ko waral dañ ñu ci fekk si di ko àndandoo ak ñun kon loolu bu amee taxawaay nu mu gën a yaatoo gën nee rafetee gën nee dëgëree rek moo ciy gën ci loolu lañ ciy séentu mu mel na nag waxtu wi mu tombeel xaw naa xat ngir nawet la ca nawet mëni suta peeg euh, li ci aju lépp ndax taw bi mënees na ko natt waaye du doon ay mesures yu exact yoo xam ni danga naan nangam ci doo xam des fois kañ lay ñëw yooyu doon ay paramètres yu naqaree maîtriser te li ci gën a metti mooy ay nit lay dal seen kaw ndax ay nit koo xam nit ñoo xam dañoo war a teeru ay gan ndox génne leen seen kër du maraanke ko metti la loolu di njàqare ñaare bi muy ndox mu ñuy naan loolu moom kenn waxatu ko kenn yàgg na fi waaye Touba dafa fekk ne lu fi mënoon a doy bu màggal ñëwee mu mànki loo xam ne nag nu mu mën a toll su màggal ñëwee dutul doy su fekkee màggal ñëw na fekk ko mànki faaw mu jur njàqare mu mel ni daal suñuy njàqare yi dëgg dëgg dëgg ci ñaari côté yooyu la ëppi waaye nag ñu ngi ci am yaakaar ndax fekkente ne ñi ko seqal muy autorité yi def nañ ko yitte ci ñi ngi ciy dox di ci xalaat ak di ci def alal ah, man naa am yàlla dimbali nu ba balaa booba ñu mën ci def loo xam ne nit ñi dañ yëg ne def nañ ci dara waaye nag feeg màggal gàtt na lool ndax ñetti weer rek la ñetti weer nag moom am na xeeti liggéey yoo xam ne nga xam ne ku ko fi waajaat doo fi def lool it mm, bokk na ci yitte yi kon daal ci gàttal li ci mënoon li ci matoon a wax lépp pare fi wax na ko ah maire de la commune de Touba jël na yam daan jël lu mu ci yokkutit du wàññi ko it lu mat a wax la ndax ay at a nii aussi mu ñuy accompagner di accompagner waxuma dëkk bi dëkk bi moom dëkkam la parce que mooy maire bi waaye mu ngi accompagner comité bi ci ay ay démarches am ak ay yëngoom ci organisation kon loolu loolu it lu mat a signalé la kon daal dafa mel ne ginnaaw bi ñu sante ñu seqaloon liggéey bi ñëpp ci bàyyiwuñu ci kenn nag service yëpp euh, di leen sant yéen ñi nga xam ne yéenay tasaare xabaar yi euh, di sant comité bi nga xam ne ñooy bokk taalibe yi ñu bokkal liggéey bi ñu ànd rek ñaan yàlla mu dimbali nu suturaal nu daxit nag lu ne mën naa ne yàlla mën naa def ñu màggal ci duñu am benn problème mu inondation yàlla mën na ko <laughs> mooy programme bi loolu moom ñun la jaaxal waaye ko ñu bokk ñaan rek bu ñaanee yàlla mën naa def sutura euh, ci dara ji worm ji nga xam ne suñu borom defal na ko ki ñuy màggalal lépp mën naa ne kon daal loolu la ñuy tàggatoo di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah